demoon nañ fo di waxtaan ak ñoom ci feebar bi Mouhamed di jël alalam di ci defar ay bagage di ko indaale saa fu ñu dem mu yëkkati t-shirt ak ay cap di koy séddale pour jàppale jëmm ji ci xeex bi ñu nekk beneen bi ci topp mooy te alalam du ko fekke bëgg Ablaye Diouf loo wax mu ne la Ablaye Diouf Sarr moo tax may def ànd ak ñun du essence am du otoom du ñaxam lépp daf ko ci boole di ko ci def ne Abdoulaye Diouf Sarr yow boo réussir rek président Macky Sall dina lool loolu nag. ku ko def ba tey jii dee bett la li may wax gaa yi rek ne leen ku yebul na ko préparé. ndax kenn ku nekk xam na ni yàlla ñu fekk ci lu neex yàlla. loolu rek moo mat a ñaan mu tombeek nag période boo xam ne kenn ku ne war na xam ni feebar bii fi nekk tey suñu boroom teg ko ci àdduna àdduna wërngal këpp. te lépp lu ñuy dox tey boo ñu gisee ñuy dem bu laaj lan la ñuy dox. ciy dox mooy digalu chef de l'État son excellence le président Macky Sall boo ñu gisee ñuy dem ci loolu la ñu nekk fekkee ba ñuy tënk kii fi jógee moo jékki sama loxo teg ko si loxoom ne ma jàppantele loolu maag moom ñu dawal kóllëre yoogu ba léegi bon xaritu président moo fi jóge xaritu donc euh, président Macky moo fi jóge du xaritu tey xaritu démb moo tax euh, ma taxaw fi si cër boobu te incha allah danañu ko gunge ba dëkk bu tedd ba euh, dem toog yof tam pour euh, ànd ak famille bi donc donc gunge leen loolu daal laa ne woon danaa am lu ma ko si wax mais li si def lépp nag taxaw moo ko moom parce que ñoom bu ñu taxawee rek ñun noonu donc ñeme yëkki kat dama lay ñaan rek ma njëkk ko ndax sama kilifa la sëñ Adi Si salaamaaleykum imaam ñu ngi jégalu ci kàddu Ablaye Diouf Sarr ne bis bu ne mu dégganteeg moom ne barki démb rek Ablaye toog déggu ko mu woote ñaari yoon jot boîte dem démb ci suba 9 mu yabal ko moom bi ne ko demal seetali ma moom Mohamed Samb loolu tax mënu ma ko jot ndax yëguñu fenn feebar ne bi mu demee la ko njaboot ji ne Mohamed dafa dafa feebar mais jógagul ministre ne ko bul toog quinze heures nga dellu bi mu delloo xale bi ne ko dafa xaw a sonn mu ne ko ah man de Ablaye ma yabaloon bi mu ñëwee wax ko ministre na ko bu ma xëyee jaar fa xool ko loolu lañ mujjee waxante ñoom ñaar ñii mu dem toog xale ba mu fa fekkoon fekk ko minuit cinq minuit dix ci buntu këram moom mi ne ko def ko laajte ba yeg si ñu ne fii la yaa fa ñëwoon di seet si ko ci ndigalu ministre Mouhamed nelaw na nee na moom loolu lañ ci am nee mu woo kilifa gi xamal ko ko wax ko ko bi ñu xëyee ñu jaar fa ñu ne ñu njaboot gaa ngi fii ministre ñëw na seet njaboot gi waxtaan ak ñoom defanteeg ñoom ba pare mobiliser corbillard maire Yoff def ci lépp ne pour mu yóbbul ko xarit xaritam ñuy seedeel nag yéen ñëpp ku bëgg Abdoulaye Diouf Sarr moo dem ko doon défendre moo dem. kuy défendre Macky Sall moo dem. comme ni ñu ko waxee rek. fu ñu ànd ak Ablaye dem fa. Mouhamed dina jël teraangaam jox ñëpp ñuy seeti. sendu bi ñu demee maye na fa ay ordinateur ak leneen ak leneen. kon nag ku doon jàppale ministre bi la. yoof gi mu newoon ñu ne fa moom ñu koñ ba mu dëkkoon apix la tudd apix 1 ñëpp xam nañ Mohamed ci teraanga li mu doon séq ñoom ku baax la yàlla na ko yàlla fay xolam ñu da ko ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yu kawe jërëjëf imaam looloy kàddu